Mustafa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Mustafa santal dayab nang nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ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 وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا طيان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 وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام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 ki ko taxawaloon sëñ Tuubaa mi rek la ko taxawaloon loola itam lañ fas yéene wéyal noo ngi xamle bu baax a baax ci ni kii tëdd fii liñ doon def lépp ngërëmam rek lañ ciy wut loolu na ko ñëpp xam yéenante aw yiw nag moo tax ñu di ko soññante waaye li sëñtuwaa Tuubaa daan wax rek dara dara kenn defalul kenn dara kenn defalu fi kenn dara kenn deful kenn dara lu waay def sa bopp moo tax ñu ciy du sonn ak di sàmm ndono li bu ko defee sëriñ Moustapha Diop Seex Xujja Lay moom mooy jàng discours bi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko doon bind di ko laayante biir ak ñi mu seqaloon yoon wi te doon seen kilifa nekk ci bopp bu defee ginnaaw sëriñ Moustapha ñëw na di doomi sëñ Mahamadan di satub sëñ Masamba ay wajuram daan ko taxawé su ñëwé ñu jox ko mu barkelu tut jox sen mustafa ndax ko alaykum rahmatullah di jéggi lu baax ci yeex joggi wayé nganti jamono rek te muy lu melni nii xana ñu barkelo xasida wu gàtt rek boo xamné ne bi ñaan na ci ci mu fekk ambass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 وجاءني الباقي بأنفع سرور خير سلامه على هذا البشير تبارك الله جل جلاله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فإني أسلم عليكم أيها الإخوان سلاما تاما وأعلمكم بأني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأشكره شكرا كثيرا على اجتماعكم هنا في هذا المحل الذي جمعناكم فيه لأجل التذكرة والدعاء من الله امتثالا لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله ادعوني أستجب لكم ونطلب منه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن يزيدنا وإياكم إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منه وعافية ثم إني أوصيكم ولو لم أكن أهلا لذلك غير أني قدمت نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أن كل حي سواه يصير إلى ممات وكل بناء يصير إلى خراب لأن الدنيا فانية وكل من عليها فان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم هناك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ووجدوا ما عملوا حاضرا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون واتقوا الله الذي إليه تهشرون هو الملك الديان وهو بعباده خبير بصير لا يسأل عما يفعل وهو فعال لما يريد فتوبوا إليه قبل الموت وداركوا قبل الفوت وبادروا بالأعمال الصالحات وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واشكروا نعمة الله عليكم إذ أكرمكم وفضلكم على كثير من خلقه تفضيلاً كما أخبر به في كتابه العزيز الله الذي جعل لكم الأرض الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ومن نعمه عليكم أن جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ومن المعلوم ضرورة أن المخلوق الحي لا يستغني عن هذه الأشياء ولا يمكن لأحد أن ينال شيئا منها إلا بواسطة قدرة الباري ولطفه وإرادته جل وعز إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم مما لا يعد ولا يحصى من أنواع النعم فاجتهدوا في امتثال أوامره واجتناب المناهي واعلموا أن المنفعة التي في الأوامر متوجهة إلى الممتثلين وأن المضرة التي في المناهي متوجهة إلى المرتكبين لا إلى الآمر والناهي إذ الخالق لا تنفعه العبادة ولا تضره المعصية إنما أمرنا بالطاعة ليدخلنا الجنة ونهانا عن المعصية لينجينا من النار واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وليحب كل أحد منكم لأخيه ما يحب لنفسه وتحابوا في الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وليراعي كل أحد منكم ما يحسن به إسلامه من موافقة أهل الدولة ورؤسائها وإسعافهم فيما يريدون من مطالبهم وآرائهم مع الصبر الجميل على الطاعة وعلى البلاء وقد قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ونبتهل إلى الله تعالى أن يجازيكم عنا خيرا ويكفينا وإياكم ضيرا في الدارين وأن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا السعادة الدائمة وأن يبدل مكان السيئات الحسنة حتى نرضى جميعا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه كل من له جاه عند الله والسلام محمد المصطفى مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي صف سني كادو ci كادو yi في جيتو ziar mbokk yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci jotaay bi wala ci waxukaay yi ak jotlikukaay yi di leen nuyu nuyoo bu gën a rafet fi noonu di leen ziyaar itam ci bis bu tedd bi di bis bi nga xam ne ci la sunu borom subhanahu wa taala woowoon jaamam bu sell bu baax boobu nga xam ne moo di Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu ngir la nga xam ne moom la dëël ci ay jaamam yu baax ci ay xéewal ak bernde ak i mu fay leen ko ci bis boobu la ko woowoon mu guddik ñaar fukkeel ci weeru tamxarit wi nu nekk nuy yëkkati itam kàddu yi nga xam cheikh Mouhamadul mustafa taawoon ba te taxawoon taxawaay bu mat bu rafet ba moo baaxoo woon daa ko amal ci bis bu mel nii su koy fàttaliku su yegsee ba mu koy fàttaliku baaxoo na ni ko sëriñ Ahmadou waxee léegi bind loo xam ne da ciy fàttali boppam fàttali ci mbokk yi jox leen ab yóbbal itam boo xam ne bokk na ci li taxoon mu woote ndaje bi ni mu ko junjee. kàddu yi ñuy bëgg a nag doon benn ci yi nga xam ne moom Cheikh Mouhamadul Moustapha daana ko ci bis yu mel nii discours bi ñu tiim mu wax ci njalbeen gi ne maa ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñam ak i saxaabaam ñoom ñépp ginnaaw loolu nag mu ne yéen mbokk yi fi teew maa ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a mat di leen xamal ne itam maa ngi sant yàlla ci yéen yàlla moom mu nga xam ne lenn lu dul moom amut moom rek ay buur maa ngi dollee sant itam di leen santaat ginnaaw bi ma sant yàlla ci daje si ngeen daje si fii ci barab bu tedd bii nga xam ne li waral ñu dajale leen fii génnul yaari yëf lu njëkk li moo di fàttaliku lu ñaareel li moo di ñaan mu ne génnul ñaari mbir yooyu te ñaar yooyu itam bu ci nekk am cëslaay lu dëgër a dëgër ci biir diinay lislaam su dee fàttaliku de suñu borom moo wax ci alxuraan ne yow Moustapha sallallahu alayhi wa sallam del fàttali ndax fàttali de dana jëriñ xoli way gëm yi wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin su dee lu jëm ci wàllu ñaan itam mu ne suñu boroom moo wax ba tey ci alxuraan ne ñaan leen ma ma may leen mel na sax ndigal la di warugar ci jullit bi muy ñaan suñu boroom waxtu wu nekk te suñu boroom jaam bi nga xam ne moo dëkkoo di ko ñaan boobu moom la gën a sopp fuuf ci jaam bi nga xam ne léeg-léeg mu di ko ñaan léeg-léeg mu bàyyi kon mën naa indi ab safaan bari na lool ngalla waay àdduna si bu mu leen wor ngalla way wora kon bu mag bi itam di iblis bu mlen wor ta lolou di ayat alquran alxuraan bu sunu borom wax wax ci ne fala taxurrannakum alxayaatu dunia wala yaghurrannakum billahi alxaruur kon ay bobu lanu sëriñ bi wat xamal ñu mom sëriñ Moodu ne ma ngi leen di xamal itam ne lépp lu ngeen gis muy dundu rek lu dul suñu borom dene xeyna lasiyim dara dotu ci yengutu ci mune itam bépp tabax bu ngeen seen mu ne léng rëy lool itam fa mu mujj rek nërmee la ci suuf leen rakk a fi des muy sunu borom subhanahu wa taala kon nag na ngeen bàyyi xel ne àdduna sii ngeen nekk ak lum nur niru lu xéewale lum lu mu bari bari ay bànneex na ngeen xam ne àdduna sii kat day jeex waaye nag ngeen waajale fi la nga xam ne muy sax dàkk te du jeex muy këru ëllëg di këru àllaaxira kon bàyyi leen xel ne àdduna day jeex lépp lu ne ci kaw suuf day ànd ak moom jeex ngeen bàyyi xel bu baax a baax itam du ngeen yóbbaloo ngir ëllëg këru dëgg googee nga xam ne ci ngeen jëm mu ne bàyyi leen xel sunu borom mi nga xam ne ëllëg def na leen dajale foofee fa moom mu jëf lante ak yéen xool na leen santoon fii ci àdduna ak nu ngeen du ngeen ca doxe na ngeen ko bàyyi te yi itam di ayib alxuraan bu suñu borom wax ci alxuraan wax ne wattaqu yawman turjauna fihi ilallah mu ne na ngeen bàyyi xel bis booba nag bu baax a baax. muy bis boobee nga xam ne sunu borom dana mu dajale noonu mu ko waxee tàmbulee ca ñu njëkk ña ba ca mu ñu mujj ña ni mu ko waxee ne qul inna al awwalina inna al awwalina wal axirina la majmuuna ila miqati yawmin ma'lum mu ne bis boobu nañu ko bàyyi xel bu baax a baax te bis la bu tiis lool de bis bu raglu lool la bu mat a bàyyi xel ndax bis la boo xam ne nee na doy na rek ci tiitaanga ja sëriñ bi indi ko fii nettali ko te alxuraan wax ko doy na ca tiitaanga ja rek mooy bis la boo xam ne kat bu yegsee nit de li ko rakkam ak magam di jege jege dana ko seen daw nit de li ko soxnaam di jege jege dana seen soxnaam daw nit de li ko doomam di jege jege dana seen soxna dana seen doomam daw nëbbutu lu ko waral lenn rek la mooy ku nekk yaa ngi ak sa yitte yu la doy sëkk sëkk yaa ngi tiit lool ci nu sa borom di jëf jëflante ak yow kon bis la boo xam ne kenn ku nekk yaa ngi jàpp ne loolu nga am. ci ay caw yi waakus néew yaa ngi bañ dara coof coof ci loo xam ne dafay jëm ci beneen barab ni nga xam noonu la ko imaam Tabari di nettalee ne nit kët mën naa seen soxnaam waxtaan ak moom ne ko yow de xanaa joxoon na la sa àq ci àddina mu ne ko ah kay yow kay sonn nga ci man lool lépp loo ma war a defal rek defar nga ma ko dara manqué wul ci man de toppatoo nga ma topp toppatoo toppatoo bu rafet lool. mu sant ko lool ca loola ginnaaw ba ne nag borom kër ba ne ko nag man de dama bëggoon rek loolu nga yor ci aw yiw nga coof ci tuuti dimbalee ma ko ma mottalee ko saa yiw yi mu ne ko ah li nga ma defaloon ci àdduna nag rëy na lool lu ne defal nga ma ko ci lu baax waaye fii moom lii sa yitte mooy sama yitte mucc rek sama yitte te mucc googee jëf joojee mooy li nga xam ne ca la ñuy sukkandiku kon mu mat di bàyyi xel bu baax a baax noonu moo ko waxee ci diggante soxna ak borom kër itam noona ci diggante doom ak baay. mom itam baay bi itam man naa def noonu doom ji doom ji ne ko ah yëpp àq de jox nga ma ko bàyyi loo ma dara li nga ma war a defal lépp ci àdduna defal nga ma ko waaye fii moom wax dëgg yàlla li ma am a kus néew dama ci jima mucc kon loolee mooy aayab alxuraan boobu suñu borom subhanahu wa taala di wax ne yawma yafirru al maru min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi sëriñ bi wax ne bàyyi leen xel bu baax bis boobu nga xam ne ku ne la nga indaale foofee rek ca lañ lay isaab ku ne la nga defoon ci àdduna loolee lañ lay isaab moom lañ lay jox ci ay jëf te loolee kat mooy li sëriñ bi wax ne fa kullu ma qaddamahu l insaanu fa bil jaza yajiihu dayyaanu mu ne lépp loo xam ne nit def na ko de na xam ne loolee suñ borom dana ko ko jox ci anam googee mu ko defee woon lépp loo xam ne lu baax la lu mu indi suñu borom du ci wàññi dara lépp la koy fay waaye safaan ba itam lépp loo xam ne def na ko ci te bu ko jégluwu ko loolu itam suñu borom nga koy dencal bàyyi bu ci dara mu ne sëriñ bi danañu bàyyi xel bis bu baax a baax wax ne mooy bis bi nga xam ne de képp koo xam ne indi na fa lu baax tone woon na am na tuyaaba am am na am na tuyaaba ju rëy rëy rëy waaye nag képp koo xam ne indi na safaan itam ci kawam rek lay képp mat nay bàyyi xel bu baax te mu ne loolee itam ñu bàyyi xel ne dara ca balance yi suñu borom ya dara du ca rëcc. در ننك القرآن وحين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا من ألق دي دنا ترل ممسن بورم من دنا ترل بلاس يوخن لكو جنا ماندو أمول لن لن دوار مستقس لكو جنا ماندو در در در لميتون كن أموت لجنا ويف أب كبر لجنا سو تجيت بيبي سوف سا سنكو جتاجي دنا كوجين نشلو بع سودة سافم بيتام دنا كوجين نه kon mu ne ëllëg jaam bi kat na bàyyi xel ne li muy jëf lépp lu mu ci doon dana ko fekk foofee fa kanam borom subhanahu wa taala te loolu suñu borom ak wax ci alquran wax ne wa wajadu ma amilu xaadira mu wax ne itam kenn ku nekk itam nag na xam ne ëllëg kat na góorgóorlu kem kàttanam te xam ne lu fa am ci lu ko naqar itam ci moom la dellu waaye delluwul ci suñu borom ndax suñu borom amul lu dul noona tey suñu borom tooñ kenn kenn kenn ëppaate na ak sax di tooñ nit kon mu ne na bàyyi xel bis booba nga xam ne fa lañ jëm sëriñ bi tàcc na nag kookee ñu jàmmaar lool mu war a xool suñuy jëf mooy suñu buur bi nga xam ne moo nu bindu ñëpp nuy ay bindeefam mooy ki nga xam ne itam mooy aji dañ kumpa ji mooy ki nga xam ne itam mooy aji gis yi nga xam ne dara ump ko lépp lay teg bët mooy ki nga xam ne dara fàdduwul fi moom ni mu ko waxee ci alxuraan te it mooy ki nga xam ne deefu ko laaj lu tax mu def lii ak lu tax lu tax mu defee ko nii kenn du ko ko laaj waaye mooy àtte mooy doxal na ko soob kenn amul sañ-sañu dugg ci ne ko defe ko nii sëriñ bi wax loolu ne kon nañ bàyyi xel kooku nga xam ne laa am amma yafaal mooy dee fa ko laaj mukk lu tax mu def lii wala lii mu def lu mu waaye nam ko soobee rek la koy defee nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te kooku kat nu mu soobee nu mu bëggee rek lay defee sëriñ bi daal ñu delluwaat delloo na ci suñu borom nanu tuub waxtu wu nekk nanuñu tuub waxtu wu nekk te it nanuy dabuwaat tey dabuwaat dabuwaat mbir yi laata muy faat li ñu rëcc ci ab safaan li ñu rëcc ci waxtu woo xam dañ ko sànq ci lu dul noona loolee nañuy dabu góorgóorlu suñu kam kàttan ngir dabu la woon loolu sëriñ bu wax ko ne nañu tuub waxtu wu nekk tey delloo suñu bopp ci suñu borom subhaanahu wa taala nañu lu itam di njëkkante ci jëf yu baax yi loolu bokk na ci li sëriñ Mouhamadul Moustapha wax ci li ñu tiim wax na te bàyyi xel ne kenn ku nekk day ni mu ko waxee woon ci ginnaaw rek da koo baamuwaat feddali ko fii rek waaye kenn ku nekk day lim dawaloon ci këru ëllëg ga su demee loolu la rek la fay fekk lépp lu mu fa defoon lu mu defoon ci lu baax su ëllëgee dara du ci laatu dara du ci sikk waaye dana ko fekk foofee nga xam ne fa la jëm ca na mu ko defee woon nam tolloon kon mu wax ne na ngeen sant xéewali sunu boroom yi ndax sunu borom kat lim leen defal ci ay xéewal mënee mun mënee su koo lim kenn mënu ko lim bari na bari way bo xamne kenn mënu ko tak kenn mënu ko lim kon nan delu wat diko sant ci xéewal yoy mu def nan wat itam diko sant ci gënale gim nu gënale nun doomu adama ci lu baree bare ci binde fi neena nu sant ci suñu borom ta lolu suñu borom moko wax ci alquran nim ko waxe wax ne moom sunu borom subhanahu wa taala moy ci nga xamne defal na len souf si moy sax way saxuwaay dekk way defal len asaman mu tim len ak la ci nek ci njariñ waye bind len bindin wa gëna a rafet itam wa sawwarakum fa ahsana suwarakum ba nopi tëbbu len xewal yu dul jeex mu ne lii day lennet la ci xewal yi ñu defal mom suñu borom yo xamne war nañ koy bàyyi xel bu baaxa baax bokku na ci xewal yi ñu defal itam moy dimbali gi ñu dimbali defal nu ay cër yoo xam ne ay yëguwaay la te cër yooyu mu wax moom Serigne Modou ne benn bu ci manqué ci nit day mu doon gàllankoor bu mag a mag fi moom. cër yooyu lu sa borom suñu borom defal nag muy ay xéewal yu maga mag yoo xam nit ki da koy faral di romb lu baree bari da ko seetlu te muy xéewal yu rëy bokk ci xéewal yi gën a mag gën a dijji nee nan koy bàyyi xel bu baax a baax te bokk na ci muy xéewaluk may la ay nopp yooyu déggee xéewaluk may la ay gët yooyu xoole xewuluk may la lammi xewuluk may la xol bo xamne ci ngay taataane waye li ngay ragnat la itam nga man ko ci ragnat la ci liggante lu bax ak lu baxul loolu lépp xéewale suñu borom la yu reey yu dijj loolu lo xam yo xamne mat nay bàyyi xel bu baxa bax da te suñu borom subhanahu wa taala xol lo nañ ko ci alquran ba tey yi dañu nañuy delluwaat ci xol suñu bop xol suñu jëm yi ak li nga xamne mom da suñu borom dëxëñ ci suñu biir ci ay xewal yu mag yoo xam ne benn bu ci nekk rek duñ ko xam dëgg-dëgg fii ak demunu ba mu am gàllankoor waaye suñ demee ba mu am gàllankoor rek ñu yëg dëgg-dëgg njariñul xéewal loolu ak màggaayam mat na di bàyyi xel waxtu wu nekk nag di ci sant suñu suba ko subhanahu wa la ak yeneen nag yeneen yu bare bare ci ay xéewal yoo xam ne nee na mënee su ko takk mënee su ko liim sëriñ bi jógee ci loolu ne maa ngi leen di dénku itam ginnaaw ba ngeen góorgóorlu ci jëfee ndigal yi te bàyyi tere yi muy tomb bu am solo mooy na ngeen góorgóorlu ci jëfe ndigal yi te bàyyi tere yi góorgóorlu leen ci seen kam kàttan te it bàyyi xel na kat euh, mbooleem njariñ lépp luy lu baax lépp luy njariñ suñu borom subhaanahu wa taala dëxëñ na ko ci jëfe lu baax ki nga xam ne mooy jëfe lu baax mbooleem njariñ yépp day ànd ak moom topp ko kon kuy jëfe lu baax ku nekk njëriñ yi dañuy fàq ñoom ñëpp ànd ak yow yow mi nga xam ne yaa tege ci yoon wu baax yaay jëfe lu baax waaye mu ne na ngeen xam ne itam lor ak euh, lu mel ne moom loola itam mi ngi jublu ci ki nga xam ne moo nekk ci tere ca lànk bañ caa génn kooku itam mënut a soriwante mukk ak lor fu mu nekk fu nekk lor ma nga fa fu mu nekk fu nekk lu bon a nga fa mënut a mënuñoo tàggoo mukk kon loolu sëriñ bi nee na ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te defe naa loolu ci sëriñ Tuba sëriñ sëriñ Tuba radiyallahu tënkam ba mu tënkoon mu am solo lool firil nañu lii nga xam ne moom la sëñ Moodu di wax fii dafa tomboon ñeenti tomb yoo xam ne ñaar yi dañoo jàkkaarloo ñaar ci des jàkkaarloo jàllawle ak ñoom muy benn ci penku benn ci sow benn ci ndeyjoor benn ci càmmooy tombaat ci digg bi tomb bu mag a mag wax kenn ci magi taalibe yi ne ko diw mu wuyu ko mu ne ko yaa ngi nii ci digg bi yaay tomb bu mag bi lii la féete penku nag mooy ndigal yi lii la féete ci sa ginnaw muy sawu mooy tere yi li ne ci sa ndeyjoor muy tomb bi ci sa ndeyjoor mooy yu baax yi ak yiw yi tomb ba ci sa càmmooñ itam mooy safaan bi mooy yu bon yi mu ne ko foo jógee jëm ci sa penk maanaam jëm ci ndigal yi nee na soo jógee wuti ndigal ya la woon ci sa ndeyjoor muy yu baax yooyu ak yiw yi dalay wax ne la doomu fi bàyyi mag yow noo ànd noo bokk fu jëm su ko defee ànd ak yow mooy li mu waxoon ne fépp fooy jëfe ndigal rek su boobaa mboolem yi yëpp day topp ki nga xam ne mooy aji jëfe ji ndigal mooy day ànd ak yow waaye mu ne foo jógee itam jëm ca safaan ba muy lu dul noonu nag muy tere yee ca ginnaaw foo fa jógee jëm fa itam nee na yu bon yee nekkoon ca sa càmmooñ dalay wax na la déedéet doomu fi bàyyi mag yow noo bokk fu ñu jëm kon loolu tax na mat na di bàyyi xel bu baax a baax noo ngi ñaan suñu borom nangul nu nangul leen nongu naa suñu borom defal nu texe goo xam ne gu sax dàkk la fii ci àdduna ak ëllëg di àllaaxira mu ne nongi ñaan itam la nga xam ne mooy barabu ñaaw téef wala jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko yal na ko suñu borom soppil lu baax yal nañu suñu borom indil lu baax ca barabi jafe-jafe yooyee ba nun ñépp nu gërëm békk ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak daraje yi képp koo xam ne suñu borom jox na ko daraja foofu la discours bi yam daat ne wasalaam ki ko bind mooy Mouhamadou Moustapha Mbacké kon loolu mooy kàddu yi sëriñ Modou. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu dellu siwaat rek di yëkkati ay kàddu yu jege ci kilifa yi te ñu tënku ko teg ko ci loxol sëriñ Cheikh mi toog moom sëriñ Mbacké soxnaloo mu wuutu fi kilifaam yi tàmbale sëñ Amadou Mokhtar sëñ Abdourahmane ak mboolem njaboot gi waaye itam mu àndante woon fen ak sëñ Moussa moom sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doonoon kilifa getaay bi xamaar fa jóg sànq waaye ci seen tur lay yëkkatee kàddu yi muy kàddu yu nuyoo ak ca kàddu cant ak kàddu yu ñaan serigne bi neena na ñu sante yalla suñu borom tabaaraku taala ci tawfiq ji ñu defal tay ci bis bu mag bu tedd bi ci taxawé dundal ciosan li nga xamné mo ciosanul bis bi ci bërepp hamne nga xamné itam ci la ko Cheikh mamour mustapha njëkk dundalé dundale loolu moo ñu dajale won tay té moy jang alquran jang khasaayit tuddu yalla bernde yene yol bi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu nee na kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di sant Serigne Touba bu baax itam ci tawféex ji ñu defal itam ba loolu jàppandi ci nun taaliba ñu am jumtukaay yi ko mën a defee yépp sëriñ bi itam nee na mi ngi sant bu baax a baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo doon taxawee liggéey bi tàmbalee ci rabitatul madaris quraniya ci njiitul sëriñ Xaadi Jaxate nga xam ne naka jekk ñoom lañ daan àndal liggéey bii sëñ bi dana mi ngi ko sant bu baax a baax di ko gërëm ak mboolem daari alxuraan yi mu àndaloon liggéey bi di sant bu baax itam daari kaamil bii ci biir jumaa ji ak mboolem daari kaamil yi nga xam ne itam jàpp nañ ci liggéey bi ak daari alxuraan yépp sëriñ bi itam nee na mi ngi sant bu baax a baax waa daairatu muqaddamatul xidma ñoom ñi nga xam ne ñu ne ñoom ñoo bokk liggéey bi li ñu ci war rek mu leen ci war waaye ñu ubbil ñu bunt yëpp yaatal ñu taxaw ñu taxawee barab bi ak jumtukaay yi mu laaj lépp ba lépp sotti lépp yéwén te noonu ñu ko defee ci bëccëg bi itam jàpp naa ne mën naa am noonu ñu ko def ci guddi gi kon nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax ci taxawaay yi rafet na loolu macha allah di sant bu baax seen kilifa gi. muy sëñ Mamoun ak mboolem ñu nekk ci suufam sëriñ bi itam nee mi ngi sant mboolem daayira yi nga xam ne ñoo doon taxawee liggéey bii te ñoom ñëpp ñu tënk ci diwaanul muridina lëkkale mboolem kër yi daayira Xudoos nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax ak képp ku ci jàpp ci lu jege ak lu sori mi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm waaye nee na itam mi ngi sant bu baax sëñ Moustapha moom sëñ Mahmoudan moom mi nga xam ne ba ñu tàmbalee dundalaat bis bi ci anam gi ñu koy dundale ba léegi saa ñuy jàngee alquran ba noppi mooy def xatmu ba xatmu bi ngir ñu koy barkeloo ci ni ko Seex Masamba daan defee ci kanamu Seex Mamadu Mustafaa daal mi ngi ñaan suñu borom tabaaraka taala li nga xam jàng nañu fi alquranul karim jàng ci fi ay xasaayid yàlla na yàlla nangu te jotal yool bi ki nga xam ne moom lañ ko doon defal muy ki nekk ci suñu kanam di Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu waaye itam ñi ngi ci fasal itam mboolem jullit ñi sans borom jégal leen sans borom itam dafa leen dimbal ci àdduna ba la ñu war a taxawee seen diggante ak seen borom ñu taxawee ko ba mën a mucc seytaane ba mën a tegu ci siraatal mustaqim nee itam mi ngi ci ñaan ci barkeb bis bi ak li ñu fi doon def ci lu baax mbas mi nga xam ne tey gis jataay bi ni mu demee xame ni mu demee xam ne am na lu ci soppiku loolu yooyu itam nee na mi ngi koy ñaan bi ngi ñaan ci barke bis bi mbas moom yàlla ko fi yàlla jëlee te bu ko fi jëlee yàlla bu mu fi jël aussi te yàlla bu mu lorati kenn ci barke Cheikhul Khadim ci tënk daal loolu ma doon kàddu cant yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.